Assane Samb ñu lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa lay fay bu baax Elisabeth di nuyu auditeurs yu baax a baax. ngay directeur euh, publication réew mi quotidien di analyse politique ñu waxtaanee ci euh, forum bi nga xam ne moo am ci ndakaaru ci diiru ñaari fan euh, jëm ci wàllum jàmm ak sécurité fii ci Afrique tey ndax ndaje gu mel nii am na solo assan waaw am na solo trop waaye avant ma ci ñëw ci solo bi sax dama bëgg leeral ni ndaje bi tey. réussite la ci Sénégal. Mm-hmm. ndax Cheikh Tidiane Gadio docteur Cheikh Tidiane Gadio moo ko daan def def ko ñetti yoon. Mm-hmm. finalement état bi jël ko di ko defal boppam mais bi ko état bi commencé defal boppam année yooyu dañoo gisoon ni euh, gars yi yeneen chef d'état yi daaw ñu xoromal euh, Macky Sall. Mm-hmm. fi sax jaar da ngay gis benn forum boo xam ne daanaka doom président bu ñëw wala kenn muy mais bii nag la. parce que chef d'état yi wane na ko chef de gouvernement yi wane na ko délégation yi wane na ko institution internationale yi wane na ko discussion yi wane na ko donc dañ jàpp ne forum bi mu ngi commencé di jël place am mm. sur le plan international mm-hmm. euh, vraiment euh, di nekk instance boo xam ni même euh, boo gisee médias internationaux dañ ko relayer largement mm-hmm. donc lool am na solo déjà loolu la bëggoon a bëggoon a jëkkee mm-hmm. bi nag mooy importance forum bi xam nga forum dafa am solo mooy péncoo waxtaan ci pénc mi bu problème amee ñu toog ci pénc mi sottante xalaat loolu nag dafa am solo ndax experts yi maanaam borom xam-xam ni ñoo fay daje ak politique yi maanaam ñiy jël décision mhm. expert nag ak politique ñu mënee daje euh, te di xalaat di joxe seen xalaat ci situation bi am ci xam-xam ñi di décider euh, dafay baax ñuy ñuy waxtaan ci seen biir mhm. te donc loolu forum bu mel nii dina ko maye euh, te donc Afrique déjà dafa war am forum parce que parce tax dañoo am ay eh, terrorisme bu métti bu nekk Sahel mm-hmm. groupe yu bari nekk fii di opéré ci Sahel bi groupe terroriste yi euh, ñu koy ñu koy waxtaane France di ko waxtaane États-Unis mm-hmm. mais dafay baax ñu koy waxtaane Sénégal di ko waxtaane feneen ci Afrique mm-hmm. parce que ñun la a concerné que ñoom euh, donc euh, déjà sur la forme rek loolu déjà lool baax na beneen bi nag mooy li ma wax sànq mooy experts yeeg politique yi mën a toog waxtaan sattante xalaat te c'est vrai que mën nañ ma bon de changer lu bëri mais nag euh, petit à petit amaana boo tànn euh, amee euh, xalaat yi di gën a leer nit ñi di gën a xam lan la ñuy fan lañ jëm gën a xam lan la ñu war a mën a gën a décider. pourquoi parce que année yi passé yëpp yëpp yëpp dañuy gis ne amoon na lu ñuy wax tâtonnement tâtonnement mooy làmbatu lambatu nag moom du tax a daj làmbatu parce que xamoo kii làmb xamul làmbatu xamul fa mu ne. Mm-hmm. mbir mi fa mu ne. Mm-hmm. làmbatu bi mooy teg nañ jéem nañ fi teg force cérébrale Mali xëy teg fi Barkhane doxul. Mm-hmm. ñu teg G5 Sahel doxul euh, dégg nga donc yooyu yëpp ñu koy jéem ñu ni léegi dañuy dañuy teg la force Takuba français yi dañuy retiré wu ñu ni euh, waa force waa Wagner yi euh, Russie dañuy ñëw ainsi de suite donc tâtonnement moo am làmbatu. alors mm-hmm. donc il faut est-ce que duñu toog dans ce cas waxtaan suñu biir xool. nan la ñuy def joxante loxo pour mën a liggéey régler problème boobu parce que loolu tamit dafa am solo joxante loxo boobu wax parce que du tubaab bi ñoo ñëw régler suñuy problème suñuy problème Mahamat yaakaar naa Moussa wax na ko suñu problème ñun ñoo koy régler problème Afrique Afrique moo ko régler mais Afrique nag ñaare day day faral di yeex ci ni ñuy réagir par rapport au situations te loolu moo tax euh, problème terrorisme di gën fi law euh, ci yeneen yeneen yeneen gox yi ci àddina bi. ñoom ci seen i kàddu jàpp nañ ne option militaire rek doyul dañoo war a gën euh, sëgg ci li nga xam ne mooy ndool bi ndax ànd nga ak ñoom. waaw waaw loolu nag mooy xalaat bi nga xam ne mën nañu ko teg hmm. waaw dañ ma naan bu la neexee nga ni ah loolu moom programme la bu yaatu boo xam ne mën ñu ko réussir si benn at du ñaari du fukki at. Hmm. affaire pauvreté moom Afrique dafa doy mais dañuy jàpp rek ni option militaire bi mënul ñàkk hmm. maanaam tey da ngay jàng jàmmaarloo ñoo xam dañu yor arme boo jàmmaarloo ñu yor arme nag yow tamit il faut nga yor arme hmm. loolu dafa am solo benn euh, donc renseignement bu ñu wax militaire dañu wax renseignement euh, force opérationnelle maanaam ay force yu nekk sur le terrain di xeex hmm. mais à part loolu nag ñu xam ni problème bi fii problème ndóol la ndóol gi nag ak naxar yoo xamante ne ay ethnie problème ethnique ay ñàkk jubo ay nit ay ñàkk maanaam euh, amuñu lu ñu dundee yooyu mooy alimenter terrorisme bi loolu mooy dundal terrorisme mooy dundal immigration donc pour ñu mën a xeex dëgg-dëgg terrorisme ak immigration li ñu mën def mooy fexe ba Afrique di soqale ko te pour mu soqale ko il faut également réew yu développé jàpp ci parce que ñoom dañoo xoj carrément xoj di defar suñuy mone di ñu jaay te ñoo ñuy ñoo ñuy fixé njëg donc kile lay ki lay defaral sa monnaie di la jox. di la jaay di la fixer njëg mm-hmm. di jël bénéfice bi di di di ci def lu ko neex mais kooku kooku day day gën a am rek yow ngay gën a ñàkk donc bu Europe ak États-Unis ak pays développés yi gën a def effort ak ci yooyu amaana Afrique dina tane Afrique aussi ñu moytu nag di xeex contre corruption bi aussi parce que fii tamit loo fi loo fi loo fi andi euh, ñi fi ne nekk de riix lekk ko di xool di xooli bët corruption boobu aussi il faut ñu xeex xeex ko également buñ bëggee suñu programme di réussir donc yooyu yëpp euh, programme la bu yaatu mais bi dàqul bee booy booy xeex ci bi armée da ngay xeex ci pauvreté di def ay projet de développement à la base mm-hmm. di régler ay ay jigéen ñi di di di di mën a soxaliku xale yi di mën a soxaliku société yi di am lu ñuy dundee bu boobaa bu terroriste yi amaana bu terroriste yi soxlee ay ay ay recruter ay ay nit dina leen jafe lool lool te mën naa am terroriste yi groupe terroriste yi du am doole noonu kon tey ndax yaakaar mën naa am euh, ci ne dinañu euh, mën a faj wala sax am yaakaar ne terrorisme bi tey ci xalaat ak yi fiy euh, ruuse ci ci ci ci ci xalaat tamit mën nañoo repousser wala sax ñu xeex ko terrorisme boobule. waaw dina di jafe nag xeex bi réussir tey tey tey parce que ndax li waral lool mooy daf fi sax. ba pare ñoom dañoo organiser wu xam nga mouvement terroriste yi GS boo demee GSM le groupe islamique euh, de de lutte euh, de euh, contre contre contre de lutte pour l'islam hmm. et, et les hmm. le groupe de soutien au, au, au, à GSM ak le Grand Sahel Euh, l'État islamique au Grand Sahel hmm. ñaari mm -hmm. yu mag la yoo xam ne ay groupe yu bëri ñoo ci nekk mais ñooñu dañoo organiser mais état yi ñun organiser tentative d' organisation fi amoon mooy di ko jéem mooy G5 Sahel cinq états la. Mhm. cinq états yooyu bu ñuy bu ñu dajee seen biir bëgg daje ay affaire copinage la chef d' état yi loo xam dañoo déggoo seen biir. Mhm. naan seen ataaya mu neex boisson bi neex ñu lekk seen michu daal di toog ni nañu nañu ànd xeex. Mhm. daal di daal di daal di exclure état yu leen neex alors Sahel du cinq états loo si gis demul fenn. donc ñun ànd ñu su ñuy xeexal ànd. donc loolu mooy mooy suñu première faiblesse donc il faut que état yi également organiser wu ànd ak euh, yenn état européen yi nga xam ni bon ay français yooyu waruñu jiite xeex bi parce que ñoom ay gan lañ. Mhm. ay jàmbur lañ ci mbir mi jàmbur ci mbir mi boo ko indee mu indi ci lu ci bokkul boo bëggee ñëw sab dëkk nga jiite ko ab da ci dugal lu ci bokkul mhm. donc loolu mooy problème bi il faut que africains yi am benn force de réaction rapide nga xam ne lii force africaine la benn kenn du ko ñemee parce que les meilleures armées yi la ñuy dajalee de l'Afrique soxlaawul ñuy cantonné wu tout le temps comme ni ñu équipe nationale nii bu ñu soxlaa joueurs yi mhm. xeex donc ñu équipé am équipement am lépp am suñu drone am ay Afrique mën na loolu li ñuy yàq ci xaalis nii mais mën na loolu état yi Nigéria Afrique du Sud tout ça euh, Côte d'Ivoire Sénégal tout ça mën nañ financer loolu. kon yow jàpp nga ne comme ni ko waxee Macky waxee euh, force onusienne yi dañoo euh, maanaam dañoo atteindre seen limite. force onusienne pour xeex. xam nga force onusienne interposi force d' interposition la pour àtte mm-hmm. mais mais kenn mënul jël benn force onusienne di ko def pour xeex terroriste parce que force onusienne c' est une force d' interposition boo bëggee am nag une force opérationnelle de guerre yaa koy tegal sabab mm-hmm. avec beneen état d' esprit ak beneen mandat bien sûr appui Nations Unies Nations Unies toujours def si jàpp parce que Nations Unies état yi la. Mm-hmm. ak état beneen boo xam ne ba nga bëgg a ñëw jël sa xaalis si nga dugal si. pays arabes yi pays yooyu de Chine tout ça mën nañ appuyer di façon logistique. Mm-hmm. ñu xool force boobu nan nañ ko tege mais boo gisee teguñu force bi c'est parce que bëgguñu régler problème bi xam nañ solution bi comme toujours rek en Afrique dañuy gis solution bi ñu bàyyi ko fa nekk ci ay tapale te tant que yaa nekk ci ay tapale mais problème bi du régler te loolu la ñuy def nii. jéem ñëwut benn force d'interposition euh, naka la bi ay groupe euh, jihadiste chaque jour ñu rey cinquante militaires ah au Burkina Niger Mali alors que groupe yooyu bu ñuy def mouvement di di di kii satellite yaa mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi toog fi ñu toog di leen gis mais mais attends y a problème y a problème. Mm-hmm. moo ta euh, population Sahel yi di commencer manifester contre les forces étrangères parce que double jeu bi dafa dafa flagrant. loolu moo ñu jàpp. Mhm. bu ñu am bis bu ñu amee réelle volonté eh problème bi dina réglé wu. dina réglé wu jeexaleeg politique euh, ñëw ci suñu réew wax ci li nga xam ne mooy investiture yi ñu nemmeeku euh, fan yi euh, gën naa tar ci côté benn Bokk Yaakaar waaye ñu gis ne dafa mel ni dañ leen a fulaalul dara benn ñaar ñett koo ci laajteex amaane na benn nit moo ko suivre ak xam nan la fa demee. lan nga jàpp ne moo waral communication bi paasewul ci côté Benno. non dafa amatul enjeu xam nga communication dafa war am enjeu. Mhm. bu fekkente ni dama ñëw tey ne la Elisabeth kaay ma wax la. Mhm. te yow fekk na jéppi nga ma. Mhm. wala fekk même boo ma jéppiwul lépp lu ma la waroon wax a naa la ko. dama wax ak yow trois heures du matin. boo ma nee kaay ma wax la damay soofantal te ma fàtte ko sax. en fait li mu tekki mooy dañoo communiquer bu ëpp. ci investiture yi. Mhm. ba léegi nit ñi doyal nañ ci. que ñu investir Abdoulaye Diouf Sarr c' est bien mais nit ñi xamoon nañu Abdoulaye Diouf Sarr mhm. léegi rek que moom mu ne day ay programme ak yooyu mais attends programme maire kan kan kan la kan gondi gondiwul kenn. Mhm. programme maire gondiwul kenn parce que ñëpp xam nañ ni maire bi maanaam ci exécutif bi du bëri état bi bu bu neex bi nga war liggéey donc liggéey. yow maire bu la neexee nga ne damay dem asamaan si def fa ay échelle yéeg ci kaw asamaan si mais après looy def acte trois bi y a des limites. Mhm. ainsi de suite moo tax programme bi gonduwul nit ñi moo tax digluñu programme bi xam nañ ne enjeu yi jeex na tabb nañ fi ñuy tabb nit ñi loolu lañ doon xaar gis nañ les listes parallèles xeex moo des bëre Barthélemy contre l'autre contre Abdoulaye Diouf Sarr contre Soham contre Doudou Wade yooyu la ñuy xaar yooyu moo intéressé nit ñi. Mhm. mais ay bon Abdoulaye Diouf Sarr bu ko neexee mu wax lu ko neex mais kan du ko déglu koy déglu nit ñi programme maire yi kiiwu leen euh, gondiwu yu bëri sax duñu duñu campagne programme mais ku ci dem ba jaay ak sérieux di campagne programme bi may wax ak nit est-ce que day na diglu loolu mooy question bi parce que nit ñi xam nañ xam nañ maire lu mu xam nañ ñaar li mën ñu wax ci euh, li nga xam ne moom mooy Covid gi euh, du yàggati lool ñu dem ci ay campagne électorale waajal li nga xam ne mooy local yi waaye ñoo ngi ñuy wax ne variant bu bees bi egsi na ci même réew ndax li ni mel du casser un peu dynamique u campagne électorale comme nuñ ko xamee woon. du ci yàq dara tànk kenn faatuwul waaw nit ñi nag bu bu maara détaillé kenn ñaanu ko bu amee ñuy faatoo ñooñu cas grave yi comme delta bi mu ñu arrière. Mm-hmm. mais nii nii kenn du arrière comme ministre de la santé sax du arrière waxuma la keneen. campagne bu ñëwee gars yi lu doon def dañ koy fàtte. kon daal dinañ campagne ba mu saf saf. Euh, rassemblement yeeg yooyu est ce que duñu fàtte julli sax moom kay <laughs> lépp lañ <laughs> lépp la ñuy fàtte laa léegi nag <laughs> comme comme comme heureusement yàlla dimbali nañu ba million de morts yi na Afrique amagul ah yàlla na yàlla continuer di dimbali rek waaye tant que amul ay cas grave de moom nit ñi moom vaccination bi xas nañ ko raté campagne bi mënatuñu ko reprendre campagne sensibilisation bi geste yi xas nañ ko raté nit ñi teg ko ci suuf mootuñ ko reprendre donc euh, je pense que ñi war a wax sax taratuñ ko ñu ngi ca campagne donc euh, campagne bi moom comme ni ko waxee dina saf sap moom. d'accord <laughs> Assane Samb ñu lay jaajëfal bu baax a baax. merci Elisabeth ñoo ko bokk.